sallallahu alayhi wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi dellu siwaat ci tawfiqu borom bi jalla wa ala ci sunu darsu fiq ci sunu téere boobu di risaalatun fi lwudui wal gusli wassalaa bu al sheikh al allaama muhammad bin saalih al uthaymin rahimahullahu taala mu mel ni noo ngi woon ci fi nga xam ni mooy sifatul wudu maanaam kayfiyatul wudu maanaam anam gi nga xam ni moom lañuy jàppe mu mel ni agsi woon nanu ci juróom-benneelu tomb ba te mu doonoon raxas ñaari yoxo ya ñetti yoon dale ko ci maanaam tàmbalee ko ci cati waaraam ya jëm ca la nga xam ni mooy conc ba te conc ba doon loo xam ni moom it day dugg ca biir raxas ba waaye raxas boobee loxo bam cay tàmbalee mooy loxol ndeyjoor moom lay jiital ci raxas bi ndax mbir yi nga xam ni mooy mbiri sharia dafa tegu ci tër wu am solo te mooy lépp loo xam ni dafa doon ci buntu loo xam ni lu tedd la lu rafet la buñ koy tàmbalee dañ koy tàmbaleek ndeyjoor safaanu loolu it buñ koy tàmbalee dañ koy tàmbalee càmmoñ loola ki nga xam ni mooy an-Nawawi daal dina koy wax bu ko defee nu jàll ci juróom-ñaareel ba mu ne summa yamsaxu ra'sahu marratan waaxida topp nag mu daldi rax maasa mu daldi maasa bopp ba benn yoon kon foofa la ca topp gannaaw yoxo ya ba ca conc ya la ca topp mooy maasa bopp ba bopp des koy maasa ma ngoog te limu maasaa ba benn yoon la moo tax mu ne marra waaxida léegi nag mu dikk ci melokaanu maasaa ga ma ngoog mu ne yabullu yadayhi day tooyal ay yoxoom bu tooyalee yoxo ya yu yumirruha bu ko defee mu daldi koy jaarale rombale ko ma ngoog daal di koy fomp min muqaddami rasihi min ma ngoog min moom ibtidaa la maanaam tàmbalee ko ca muqaddimi muqaddami rasihi kanamu bopp ba ma fa karaw ya nga xam ni mooy karaw yi ba fa ñuy tàmbalee sax ca jëba foofa lay tàmbalee maasa bi ilaa daal di jëm nag gis nga ko ilaa mu axarihi daal jëm ca njeextal bopp ba gis nga ko tàmbalee kon ca kanamu bopp ba ba fa bopp ba jeexee loola bu ko defee muy gennuk dem suma topp yacuudu mu dellu si ilaa muqaddamihi ca tàmbalee fa nga xam ni mooy bopp ba kon day daal def benn dem benn dellusi waaw kon loolu mooy maasaa benn yoon ba waaye du benn dem rek nga daal ko fay yemale déedéet déedéet ngoog dangay daldi def benn dem benn dellusi ma ngoog loolu kon moom mooy benn yoon bi nga xam ni ca la maasaa la nga xam ni mooy bopp ba ma ngoog bu ko defee noona mu ne ca juróom-ñetteel ba summa topp yamsaxu uznayhi marratan waxida mu maasaa it ñaari nopp ya bu ne it maasaa ba benn yoon la na mu maasaawee bopp ba noona lay maasaawee nopp ya ma ngoog noona lay maasaawee nopp ya lim ba mu maasaa bopp ba lim boobee ci lay maasaa it nopp ya mu indi melokaan bi melokaanu maasaa bi mu ne yudxilu sabaabatayhi fi simaaxihima wa yamsaxu bi ibhaamayhi daahirahuma mu ne bu boobaa na muy def mooy day dugal ñaari baaraam yi nga xam ne ñooy baaraam baaraami joxoñukaay yi ma moom lay dugal ca fa nga xamante ni nii mooy tijjeekuk nopp ya muy bën bënu nopp ya biir nopp ba ba ngoog baaraam ya nga xam ne ñooy baaraamu joxoñukaay yi moom la koy maasaawe bu ko defee baaraam ba nga xam ni nag mooy baaraam bu dijj ba booba kon daldi maasaa la nga xam ni mooy kaw nopp ba maanaam biti nopp ba kon biir nopp ba yaari baaraam yi nga xam ni yaari waaraam yi nga xam ni ñooy waaraam yi joxañikaay yi ba ngoog baaraam yu dijj yi baaraamu dee yi yooyu moom mu maasaawee ko la nga xam ni mooy kaw nopp ya kon foofa nga gis ni fii boroom téere bi dafay junju ànd goo xam ni nopp ak bopp dañ koy ànd ma ngoog lu mel noona cheikh mohammed ibrahim day wax mu ne ibn qayyim wax na ci téereem boobu nga xam ni mooy zaadul maad mu ne moom yonante bi aleyhi salaatu wassalaam kaana yamsaxu uznayhi ma rasi bu daan maasaa da daan maasaa boole bopp ba ak nopp ya comme nu mu rote al uznaani min ar ñaari nopp yi ci bopp lañu bokk gis nga kon boo maasaawee sa bopp dem daldi dikkaat bu boobaa da ngay dal jubal gis nga ca nopp ya daldi leen di maasaa ñoomit mu ne kon kaana yamsaxu zaahirahuma wa batinahuma daan na maasaa biir béeg biti bi mu ne walam yathbut anhu annahu axada lahuma ma an te saxut benn yoon nag foo xam ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ba mu maasaawee bopp ba ba pare dafa delluwaat tooyal ndox ma tooyal gu bees ngir dikk maasaa nopp ya déedéet ca benn tooyal ba nga xam ni moom la tooyaloon loxo ya ba muy maasaa bopp ba ci benn tooyal boobee moom lay wéy di ca maasaayit nopp ya kon ci benn tooyal bi ci lay maasaawee bopp ba maasaawee ca nopp ya ndax al uznaani min ar ras nopp ci bopp la bokk kon loola ibn al qayyim dina koy daal dina koy wax kon foofa gis nga anam gi nga xamante ni nii moom mooy anam gi ñuy maasaawee bopp ak nopp juróom-ñetteel ba juróom-ñeenteel ba mu ne gannaaw loolu summa yaxsilu rijlayhi salaasa marrat gannaaw loolu mu daldi raxas nag ñaari tànkam ñaari tànkam yooyee bu leen di raxas lim ba ñett yoon la salaasa marrat ma ngoog min ruusil asaabi ilal kaabayni wa yabdau bil yumna summa al yusra bu ko defee raxas ba raxas ba ma ngay tàmbalee ca catiwaaraam ya ruus al asaabi fa lay tàmbalee ilaa daal di jëm al kaabayni ca fa nga xamante ni nii mooy ñaari yax yooyee nga xamante ni nii ma mooy yax ya nga xam ni moo nekk ci tànk ba nga xam ni tànk bu nekk am na ci ñaar ba ngoog côté ndeejoor ak côté càmmoñ bu ko defee loolu it da koy dugalaale ci biir raxas bi ñaari yax yooyu da leen di ëmbaale ci biir raxas bi na mu defoon conc yax du ñëw ba ci foofu rek taxaw déedéet waaye da leen di ëmbaale ci biir yax ya yabda'u mu tàmbale bil naa ci ndeyjoor ba summal yusra topp nag mu daldi di jeexalee càmmoñ ba ma ngoog kon tànk yit ma nga noona ñoom des leen di raxas leen di ragg ma ngoog ci njàpp lu dul nag nit ki sol li nga xam ni mooy ay xuf waaw kooku moom bu boobaa xufu moom des koy maasaa deesu ko ragg ma ngoog moom des koy maasaa kon bu dee maasaay tànk mangook ni mu dikkee ci riwaayaat yi maasaay tànk ci boo solee xuf la ma waaye bu fekkee soloy xuf tànk moom des koy ragg des koy raxas waaw loolu nag wuuteeg ñi nga xam ne ñooy chia yi nga xam ne ñoom sol nañ xuf soluñu xuf ñoom dañoo jàpp ne tànk dees koy dees koy maasa waaye loolu boroom xam-xam yi andi nañ ci ay tontu ak ay leeral yu leer nañ yuy wane ne tànk bi amut xuf boobu des koy raxas waaye buñ nee maasa riwaaya ba dikk ci maanaa maasa boobu bu amee ay xuf la ndax yonant bi aleyhi salaatu wasalaam noona la ko doon jëfe gis nga kon dalay won ne nit ki mënoo rek yam ne dangay sukkandiku ci laaya yi te doo dellu ci laaya yi ca kamu wàccoon koo ko doon ko leeral lépp loo xam ne aajoona jëfe mu jëfe ko saxaaba yooyu gis saxaaba yooya nag toxal ko ba mu egsi kon loola bàyyi ko xel bu baax a baax a baax bu ko defee nu teg fii sunu baaraam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.